bëre na ndaysaan diggante Pablo ak Petit Volcan Pablo Petit Volcan Pablo moo la woon ginnaaw mbokk yi Volcan moom nga jàkkaar lool ndaysaan Pablo ak Petit Volcan Ousseyn nga ni mooy rakku Aline Seye Pablo moo taxit daan nañ ko ba wax ak ba may tontu lañ ko daan. daan la kenn musu koo gis. ko daanee la ko daanee yow. non la ko daanee la. wax nga wax. boo demee di nga am lay. di nga eh, wax ni ñu ko daanee lan la. am na. ndeysaan